matériel lu ngay ñan presque mairie yi fi nekk dañ ko saboté complètement ngir dëkk bi dafa am fu koom-koomam bari bu dee téeméeri nit la juróom-ñett fukki yëpp ay éleveur lañ léegi suufu ngéeñeen jeex na tàkk te li éleveur di ci commune bi li nag di dugal ci commune bi amul benn projet bu koy dugal ci commune ngéeñeen bi ñun ñëpp xam nañ ko boo seetloo àll bi boo seetee ngay ñan lépp lépp lépp lépp lépp lépp fu mu ne nii presque cent hectares yi mooy desit bi coow amagul ngir nag yi dinañ ñib si te nit yi fii lañ dëkk te foofu lañ den doon taaj téeméeri hectares ak juróom fukki ñu joxe moo nekkoon li fi ngay ñan dese waaw est-ce que ndax waa commune bi am nañu xalaat ay doom ñoo fiy juddu suuf si xat na buñ ko jëlee jox ko benni tubaab tubaab bi dañu éliminer suñu jur yi éliminer suñu doom yi ngir kër boo gis fii léegi ñetti nit a fa nekkoon téeméeri nit a fa ci fi nag yi nekk ci lañ leen doon ma war a may tool bu ñu jëlee téeméeri hectare nag jox ko tubaab boobu est-ce que ñooñu dinañ amati tool ndax ñooñu dinañ samaat tubaab bi am na fi ñaari téeméeri hectare ak juróom fu tekkiwul tës ci ngeeñan ñaari téeméeri hectare ak juróom fukk kay commune bi avant ñu def ko def tey askan bee ko moom waa commune bi avant ñu defaat leneen dañu war a woo askan bi wax leen ne ah projet bi ñu fi njëkk a def kat lii ak lii la génne nii ak nii mooy njariñam ñëpp xam ko waaye loolu amul ku fay liggéey dañ lay dàq léegi ñu jëlaat la desoon ci suuf si as tuut loolu rek a fi des ci ngeeñan tey soo woon waa mairie bi ne leen waaw nag yi fa ñuy taaju tey duñ ko wax li seen wax ñu ne comme maanaam eh, nag yi da ngeen koy wàññi dugg na fi gën nag kale doomu aadama nga ne dañ lay jiital nga wàññi alal ñun ñëpp ku fi ne xam na ne nag moo fi njëriñ ak mbéy ak samakat samakat samakat boo fi gis day béy waaye ci desitu nag yooyu nag la ñuy ñu amul nag itam ci desitu nag ci desitu nag yooyu fii ñu samee nag yi fa la ñu war a béy waaye bu fekkee léegi commune Ngoyniane yëpp jël nañ ko jox ko tubaab yi ñu ñag ko xaw ndax waa Ngoyniane dañuy toxu ngir fii am na ñoo xam ne ñëwuñu fan waaye seen njëriñ la ñuy suul li ci gën a naqar yëpp nag il faut desit wara am nag boo ko toxalee da koy teg bërëb loi moo ko wax du condition pour comme maanaam dañ leen koy ñaan loi moo ko wax loi moo ko wax waaye comme ñoom dañuy jalgati loi seet li leen neex ñu di ko def buur dimbale leen itam ak doole ngir bu fekkee ne nag yi bu fekkoon ne loi dafa ne woon nag yi dañ koy jaay ñoo xam ne loi di ma waxoon ne nag yi dañ koy jaay waaye loi moo ne na nag yi jaar fii naane fii samee fii loi moo ko wax léegi bu fekkee ne jeexal nañ lépp bu mu jeex ñun amatuñu fu ñu sambu mu des benn ruq bi ruq bi mooy central boo gisee moo am espace boobu central bu mbedd yëpp fa lañ daj loolu tax moo am espace boobu boo jogee fois mbed bi jóge fois fa la dem mbed bi jógee Aga fala dem mbed bi jógee Jolofira fa la dem mbed bi jógee Ngeeñan fa la dem mbed bi joge géej Mboojeen ñëw biir géej fala la dem gëni dem dem dem foora dem Mbuur looloo tax mu nekk Carrefour mu dese tuuti ñun nag liñ bugg gouvernement bi na seet ñun nekkuñu di daaneel réew mi dañu yëkkati réew mi li li fi nag am tubaab bi di ko fi def ba duna tukki kenn ñaanul sa doom di fe sa doom di feeku journée 2000 francs te journée 2000 fois 2000 mil yooyu un mois la un mois dong la fi fay nit euh, xaal bi doo ko roose machine a koy roose njambat nga fay def semaine tool bi pare balaa nga ñëwaat ca wit ba xaal gisu leen fi xaal ñu di ko wit ñaari weer ñetti weer benn wer nga ko yit mu jeex bon lan moy njëriñam ci kom kom nak bi bor bu set alarba bu ne mu duggal kom kom ci bir commune Nguéniène bi ñun xam nañ ko nak fofu ele foré am fa sen fulak fayda nit ki bu lay sul sa ak sa alal Fi liggey mo tax ñu di fi taaj nit du ay diplôme ñom ñoo wara am kula yakal sa alal nga dagasse ko mu sori man ci sama gis-gisu bop de suuf nak dañu bëgg bu ne yëg na ne alalu réew mi ci réew mi la bokk na dindi suuf si na tubaab bi dem Espagne moo ñu ëpp suuf foofu ñun kenn duñu ko nettali ñun xam nañ ko ëpp ñu nag ëpp ñu moyen bu ñu béyee waaye dañ fa ko ne ñuk ñëw fi di siif suñu suuf di gën a wàññi suñuy koom-koom am na fi am na fi téeméer ak juróom fukk jëleel ñaari téeméer ak juróom fukk bale boo boole di ñeenti téeméer hectare ñeenti téeméer hectare yooyu bëri koom-koom bi kenn mënu mënu la ci wax ne lii la tekki ci dëkk bi amul ken, xal ba moom est ce ku dëkk ngeeñeen gis nga fi jigen wa ngeeñeen yi di jaay xal doo ko fi gis bo soxla xal tay ben xal sax boko soxlon tol ba duñ la ko jaay sanjara ngay dem bon day mel ni kay sanjara moy joge fele ñew di exploiter suñu suuf di yobbu yàq suñu samakat Yak suñu nak ngeeñan fi ngay gis ni bu dee téeméeri nit la juroom ñet fukki nit ak juroom yépp ay samakat la waye maire bi dagaase na maire bi dagaase na ma dama délibéré dama maa ko délibéré loolu la fi wax maa ko délibéré bu leen neexee bu leen nefee seen nag na ngeen ko xam fu ngeen ko yóbbu waaw loolu la wax loolu man maa ko wax loolu la wax njëkk a wax wax yëpp ñëpp dégg nañ ko te tey même bu dul wax ji conférence de presse bi ñu def réseaux sociaux yi doomu ngeen bu ne commune bi donc de bala à à à au Mbang Fadial ñëpp a ngi ciy wax jot na nag tey parce que tey sooy xool suufu suufu Nguéniène bi ñu ko commencé jax caxat caxatee je crois que c' est bien avant ñuy nekk commune te c' est la même personne Maguette Ndao moo nekkoon PCR moom moo délibéré espagnol bi premier cinq hectares yi joxaat ko cent hectares yoo xam ne cahier de charge yi ba léegi dara leeru si amul benn conseiller boo xam ne moom ñun ñoo leen fal booy laaj ci cahier de charge mu wax la ci lu leer ñoom seen bopp xamuñ si dara. le maire tu l'appelles lim dit mom déjà boko boo day xunn donc ku du bëgg ku teen tay dafa jot pour ñom ñu léral parce que tay li produit mel waxoon ak population bi defu ci dara sauf 100 000 francs yi mu fay pour faire le bornage ak 15 millions yi war a ci caisse, bo xamna ñun ba ñu 15 millions yi yi produit mel di depuis 2005 li lañ ci réalisé donc produit mel ñun pour ñun ça n'existe pas au Sénégal ou bien dans la commune de parce que amul ben rentabilité pour la commune dañ signé woon na dañuy recruter ay jeunes ak ay femmes signé leen contrat yu leer nañ ba tey contrat amul dañ leen jël journalier yoo xam ne une semaine ngay liggéey toog ñëwaat pour un mois pour witti xaal bi soo paree toog toute l'année te dañ waxoon ci biir cahier de charge bi aussi que ne day abal paysans yi tool yi ñu béy ci kanja moom moo koy labouré jox leen semence ak intrant ba tey defu ci dara dañu waxoon tamit ci cahier de charge bi ne moom day ga day permettre pays kii ah ah nu mu sàmmkat yi ñu am ndox bu doy pour mëna a wëgg seen i ba tay ñom amu ñu problème bo parce que heure bo gassé forage xam nga né teen yi ko jégué yëpp ay déy donc amatul fof ndox amatul fof njaman dañu tak sa di roti ji fenen ak jollo firak fenen ak fenen donc forage yoy moo tax ba teen amatu ñu ndox ba tay ñom tam ci kër sa dañu wax dañu jox chaque village addiction d'eau potable ba tay lolu amul donc je crois que suñ dé ba tollu fof ñu fal ay conseil fal un conseil municipal mënuñ tànk population wax leen li le produit mel def té ñun ñuy gis dégâts yi il est temps que ñun ñu jox te jog nak dafa jot parce que tay mëno ñëw mais sa jabar soko joxe joxee dépense mu ñëw pour semaine bi yëp mu togg ba ba mercredi na la dolima mais ding ko ne fo duggal lima lima la joxon jox nañ ko 205 hectares mu ko exploiter dar duggul ci commune bi luñu gis ñun ñu bu ko joxal yeneen 100 hectares yo xam ne la fi ñi sam ay nak mais tey Ndingler li tax problème bi garaaw ay tollu jàmm lañ joxe mais fi dañu jël sam fo xam bo démé département de Mbour ñëpp fi lañuy sam sé di nga daje nag ko xam mu nga dëkk ba feulé ginnaw euh, nu tuddi ñaga ñaw

bu na ñu ñëwoon tey soxla ay kër fan la ñuy dëkki li gën a garaaw tey ngee Nguéniène paa bi wax na ko lotissé nañ Ndianda Carrefour ak Ndianda Mbudaay ak Mbudaay extension mais tey boo ñëwee Nguéniène nga laaj ku fa am suuf ku fa am terrain mais 1 pour cent la seen i xarit lañ ko jox ñu fay frais de bornage ñëw jaayaat ko ñeneen tey soo xool foofu bâtiment yi fa nekk amul benn waa ngeen bu fa dëkk ay waa Joal ñoo fa dëkk ak ay waa Mbour donc lii boole de

mën nañ leen jël personnel individuellement joxoon ay tool feneen mais fi c'est une zone boo xam ne pour sàmm la bu fi yàgg depuis lors fa la yi di jaar di dem Jolof di dem fu ne mais nag yi dem Jolof buñ leen buñ leen buñ ko bàyyee fa la ñuy dellu si waat mais mënoo dëkk fii ngeen sa nag bëgg a nekk Jolof loolu mënul ne te nga am fii ay suuf yu doy tey commune bi ngeen je crois que il est temps que ñun ñun ñiy fal ñu fal ay nit ñoo xam ne au moins seen bopp yi dara mu ngi ci parce que mënoo fal conseiller boo xam ne mënoo expliquer dara ci foncier bi commune de Malicounda ak Sandiara ils ont des équipes qui ils sont dynamiques au moins dinañ dialogue avec la population Mais leen ak la mais réalisation yi am foofu fii amul réalisation sur 25 villages 4 villages courant 4 villages ont fi courant 4 villages ñoo courant pour nga def sa mule de couture si école problème après ñu avons des soucis. mais c'est pas il faut que ça cesse non seulement on exige à ce que la mairie mu joxe reddition des comptes pour le foncier loolu dañ koy exiger exigé aussi 100 hectares yi mujjee joxe te d'ailleurs sax amul keuy on a commis un huissier mënuñ la wax fi li moy délibération bi il est temps que ñu restitué tool yépp dañ koy delloo yépp sinon ñu ñëw tok expliquer ñu non seulement 205 hectares yi ñu njëkk a joxe lan la ci produit mel defal ngeeneen en retour ba paré dernier 100 hectares dañ koy restituer tout bonnement ba paré wax ñu aussi foncier bi il faut ñu wax lan mo des ak lan ñu exploité audit du foncier dafa wara am ngeeneen parce que mënuñ tok à chaque fois pour yow boo soxlaa souf biir ngeeneen

ñun ñëpp xam nañ nan la demee. délibération ba léegi nii ñoom ils l'ont fait en catimini donc amul benn këyit buñ la mën a waneel ne tool bi am na këyit tool bi am na këyit donc mun nañ jàpp ne suuf ñun ñoo ko moom ba tey suñu nee dañuy dem na waa ji jox ñu këyit bu ñu joxul këyit mais tey ñu ne tamit ñoom bu ñu fi jógee ana dinañ am maire boo xam ne dina ñëw nañu foncier ngeen kii ak kii ak kii ak kii moo am kër même kër bi nga dëkk daa war a am këyit pour alors que pour parcelle euh, d'habitation vous voyez donc c'est une discordance continuer à la parce que nous ñu choses. en famille le maire n'a qu'à à une réunion publique comme les conseils sont incapables de donner la bonne information je mu expliquer parce que nous des c'est un impératif daf si bokk audit dèjà day am ba pare su loolu pare nit ñi jox bu ñu amee kayit ñu ne leen mais lan ngeen amal njëriñ RSE dafa war a am toutes les voies yu ñu yu ñu yoon may nañ fa jaar fépp nañ fa jaar et ku nekk ku ko xam ne war nga am ci information bi nañ la jox information bi ñëpp jàppale ñu si parce que aussi c'est un cri de cœur qu'on lance à tout le monde na ñëpp ñëw ku nekk koo xam mu mun ci dara ñu jàpp ko si parce que tey suufu ngeen jeex na tàkk Thank you.